que pouvoir day nekk ci posture réactive moom day xaar rek buñ ko dooree mu fayu alors que politique da nga war a am initiative yow yaa war a jël initiative ba loolu faiblesse euh, euh, pour camp présidentiel bi beneen faiblesse pour ñaari camp yëpp mooy que ñaari camp bu ñu jàkkaarloo rek tension bi day yëg ah su doon trois camps wala quatre camps euh, discours bi du du jàngee noonu mais bu dee jàkkaarloo su amee loolu moom tension lay indi euh, ci ñaari camp yëpp